responsable politique bu alliance pour la république APR bu Thiès nekk it conseil municipal ci commune bu Thiès ouest waaw gannaaw suñu leen gërëmee yéen taskatu xabaar yi ci wuy si bi ngeen ñu wuy si pour ñu am leeral yu ñu leeral ci xew-xew yi nga xamante ne moom moo xew fii si senegal ñu bokk ko ak ay woyu politique yoo xamante ne dañuy kujje ak suñu suñu pouvoir bi di di di ñaawlu li nga xamante ne nag démb moom moo am ci askan wi waaw parce que ñi war a wax suñu waxulee faw mu am ay dérive yu mel ni li am démb muy loo xamante ni ñiy politique ak ñi dul politique chef religieux yeeg notable yi ñëpp a nga ñaawlu parce que yor alalam gaare ko bundu këram ay nit ñoo xamante ni xamuñu dara ci république ñëw yàq ko parce que li xew ba ñu reporté euh, ba élection yi am report c'est très simple dañ naan Sénégal dañoo nekk ci république di ci wax di ci wax or que nit ñi comprendre nuñu sax lan mooy république am contentement di pour rek leeral li nga xamante ne moom moo dal Sénégal ci bis yi ñu wees te report des élections indi ko gannaaw ñuy dugg ci report bi dañuy ñaawlu li nga xamante ni moom la ay ndaw def dem ci seen matadi ak ci seen xamadi parce que ña taxoon ñu koy def gis ñu benn leader boo xamante ni wàcc na sur le terrain wala ànd njabootam wala ñu gis ci doomu benn candidat déclaré kon loolu ñi ngi koy ñaawlu di woo ndaw ñi aussi pour ñu am un peu pour ñu xool seen avenir ëllëg pour ñu xool li nga xamante ni alal nit ñi ñuy yàq nit ñi dañoo tàmbalee zéro liggéey ba toll fi ñu toll ñoom aussi nañ dem uti li ñu am euh, politique yi nga xamante ne ñoom la ñuy topp dañ leen dañ leen di nax waxuñu en waxuñu leen dëgg parce que report bi am ñoom candidat déclaré yi ak candidat yi nga xam dañ leen a ñoom ñoo ko nangu ba signé ko xaatim bi mi ngi daw si bépp télé mi ngi dem si réseau si sociaux yi kon tey su bëccëg jotee leader yooyu ne dañuy bañ bañlu ñoom jeunes yi bu ñu leen si topp parce que Sénégal su fekkee dañ ne dañoo nekk ci république ñu xam ni république bi li ko fi teg nation bi moom moo ko fi teg euh, dafa am benn boroom xam-xam bu ñuy wax Abraham Lincoln jiite États-Unis def fa résultat yu jéggi dayo bokk na ci meilleur euh, président yi nga xamante ni ñoom ñoom la États-Unis am si si euh, bi mu génnee ci mandaam journaliste dañ kaa laaj ne dafa am loo tegoon loo xamante ni c'est anticonstitutionnel loolu anamu ak foo ko teg mu ne waaw def naa ko mais bi ma koy def dama doon sauver nation bi loolu nag si misaal ñun Sénégal mi ngi mel ni nit ku am jabet Macky Sall fi mu toll ak Sénégal yi nit ku am jabet la ñu amputé benn tànkam mooy république bi pour sauver la nation mais kenn mënta eh, rey rey dee dindi dundu pour sove benn cër mooy li président def ay la yéen même su fekkee ñenn ñi dañuy juger que ni c'est xel mën na kaa nangu parce que tey jii suñu demoon élection kii gagné élection yi ña nga xamante ñoo lay teg di la waatloo ñooñu lañ ne dañ leen a ger dañ leen a ger ñooñu lañ ne benn candidat bu bokk ci candidat yi ñoom ñoo ger suñu candidat Amadou Ba comme ni nga ko waxee moom moo ger ay la yéwén président ci bëggam jàmm si bëgg stabilité si bëgg jox Séné teg Sénégal si loxo yoo xamante ni du am benn werante du am benn xiiro du am benn ŋaayoo président génne arrêté pour woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo sekk mbir mi. bi ñu demee assemblée du waa Benno Bokk Yaakaar rek ñoom ñoom ñoo proposé député yi bi ñu xoolee ne 6 mois la ñuy dàq élection yi ñoom ñoo xool nawet bi ay la yéen nawet bi day am ñu ñu dàq élection yi ba 15 décembre. si si xel rek xel ñu utiliser suñu xel ñun ñëpp surtout sama moroomu ndaw ñi nañ utiliser suñu xel président bi muy dàqalu élection yi dafa ne moom président Macky doonatul candidat la mu waxoon dem ak bërgi dem mi ngi si si la sax du candidat loolu nag ay la yéen ku mu doyul ñu naan dafa bëgg a ngànk nguur gi dafa bëgg a téye nguur gi bërgi demoo Ndiaye ñëpp gis nañu interview bu président am ak beneen euh, yeneen taskat xibaar lam leen wax newul si kuy ngoy nguur taxawul si nguur gi mais moom en tant que sénégalais ak teraanga gi ko Sénégal defal du jël Sénégal di ko bàyyi si ay xiiroo ak ŋaayoo comme pouvoir boobu ñu ñoo ko wooteel ñu ñoo ko jox ay la yéen nañu am tuuti retenu déglu ak dal te conseiller les leaders guerre mondiale sax guerre mondiale li ko jeexal mooy dañoo toog autour d'une table waxtaanee ko ba trouver solution guerre ba jeex traite négrière bi ñuy jël suñuy maam di yóbbu di jaay dañoo mujjee toog waxtaanee ko kon tey Sénégal tey fi ko mag yi jëlee de 2012 ba 2024 ay la yéen ay mois moo des président joxe ko mais mois yooyu su koy jox na ko jox ay la yéen koo xamante ni fi fi fi Macky Sall yeggali Sénégal kooku dina ko jot si dal li ay projet si dal banque mondiale gën a am fit taxawu Sénégal parce que dëkk la boo xamante ni day xeeñ pétrole di xeeñ gaz euh, mois de juin bii di ñëw la la la la la euh, gaz bi commencé di ball ñu commencé di si di ko jariñoo kon bu ñu nangu bu ñu nangu surtout ndaw ñi ñun ñooy avenir lu demee xam nga le directeur général Mouhamadou Diaité dafa wax ay ndawam lu am solo te kenn ku si ne war ngaa taxaw seetlu waxtaan ak loolu say ndaw mooy moom Mouhamadou jiite du yabal ay doomam mukk ci manifestation Sénégal tey jii ñun ndaw ñi ñoo ko mën a tabax directeur général de la poste maanaam am taxawaay boo xamante ni si ni muy communiquer ak ak ak ak jeunesse bi tol loolu loolu lañ soxla koo xamante ni da ngay wax ndaw ñi lii ngay def soo ko defee yàq la soo ko defee Sénégal gi Sénégal ñëpp la du Sénégal Macky Sall rek la preuve en est que terre bi ñu yàq barki demoo Ndiaye Amadou Sall dugg si Marème Faye dugg si président Macky dugg si bañ koy innee inauguré ko lañ ko bàyyee ak population bi. te nag mu doon loo xamante ni day jariñ population bi di jariñ économie si si si capital bi parce que dem beeg dikk bi lay gën a yombal kon loolu lépp luñ si yàq lépp loo xamante ni ndaw dafa see yàq moom boppam lay tardel ay waajuram lay sonal parce que ñun ñoo si yéeg ñun baadoola yi euh, lancé appel nag bi nga xamante ne moom la ñuy lancé mooy ñi nga xamante ne président yi moo leen jox ay ndombal tànk ñu gën a booloo bokk say noo doon benn say bàyyi xastante bi suñu biir parce que président yi mi jël ay ndombal tànk jox leen moo leen gën jéggi na ay mbokkam jéggi na ay doomam jéggi nañu ñun ñi koy sonnal si parti bi jox leen ay ndombal tànk kon ñi ñi ngi naan président ñoo ñu yor suñuy ndombal tànk ndombal tànk Sénégal di xastante seen biir ñu ñu am tuuti retenue xam ni tey jii l'heure actuelle mooy wax ak sénégalais yi njariñ bi report élection yi am mooy wax ak sénégalais yi que génn ñu année électorale bi parce que 15 décembre si 2024 la bokk si biir année électorale bi lañ nekk am ay candidats yoo xamante ni set nañu wecc suñ demee joŋante. ku gagné ay la yéwén ñu xam ni kooku la sénégalais wooteel ñu jël kooku jox ko suñu réew pour juróomi at yeneen élection day amaat mais jël ay candidats yoo xamante ni ñii am nañ double nationalité ñii am nañ dossier ak yoon ñu ngi leen di topp loolu ay la yéen Sénégal mérité wul loolu Sénégal li mu mérité mooy am candidat yoo xamante ni mën nañ leen xoolee mën nañ leen xoolee ay Macky Sall ambulant mooy am euh, candidat yoo xamante ni ay la yéwén seeni militant dinañ gis ni ñii dinañ fi def lu fi Macky deful mais am candidat yoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, gox bi ñu dëkk sax wóoluwuñu leen am candidat yoo xamante ni conseil constitutionnel ña fa nekk ay nit lañu ay nit ñooy juum ay nit lañu dafa am fu ñu bokk am fu ñu juddoo am heure juddu ak heure faatu yëfu nit la ñuy def yàlla rek moo dul juum ñooñu juum nañu ba am ñu rëcc mais yeneen i candidat ñoom ñoo réclamé wu ñi ñu recla ñi nga xamante ni dañu leen recalé en commençant par Mimi Touré moom moo bind lettre bi ci loxoom Sénégalais yi di nga gis moo àndoon ak Macky bërki dem ak dem moo doon campagne naan Macky fi gën moo ne woon ku yi Macky mënoo yor nguur gi ñoo ñëw signé ne ñoom jàpp nañ liñ leen recalé du yoon parce que am na ñoo xamante ne am nañ double nationalité ay la yowén war di ni jàpp nañ ko si double nationalité te candidat bu jàll la kon nag Séné dëkk bi fi mu toll ñun ndaw Thiès ñun ndaw Sénégal ànd kook ay ndaw Mouhamadou jiite ànd kook ay ndaw Malay Diop ñi ngi lancé appel bépp ndaw Sénégal xam ni alalu jàmbur ku ko yàq sa alal nga yàq taal bi fajul dara leader yi su ñuy dem di dialogue wala ñuy dem ci président mag Macky guddi amul kenn ku ñuy woone kaay bunge ma garde corps sax duñ ànd ak moom ñoom ñooy dawalal seen bopp kon nag nañu dem dellu ci seen yitte bàyyi les leaders ñi nga xamante ñoom la ñu wóolu ci seen i coalition ak les têtes de file nañ dem su fekkee Sénégal rek moo leen yitteel nañ dem wuyu ji dialogue bi parce que dialogue dafa am solo li tax jaloog bi am solo mooy dialogue moom mooy indi ñu jugee 65 millions ñëw si 30 millions ci caution bi dialogue moo indi. ñu ñu ñu am ay parrainage parlementaire dialogue moo wàññi parrainage bi ba ñu bari mën a jàll. amaana suñu dajawaatee def beneen dialogue dina permettre ñu am ay candidats yu set dina permettre ñu am candidats yoo xamante ne dañuy def élection yu wóor su fekkee Amadou la Sénégalais yu wóolu jiital ko su fekkee Sonko sax la Sénégalais wóolu jiital ko mais mën ñoo dem élection sans dialogue lan la gaañ di daw si dialogue nit ñi daal nangu nañu dem seeti mag yi guddi nangu nañ dem Mermoz guddi nangu nañ dugg pale guddi mais nanguwuñu dialogue bëccëg pour l'intérêt du Sénégal kon ñooñu Sénégal ñor leen dialogue bi daal képp koo xamante ni da nga koy bañ ñun jàpp nañ ni Sénégal ñor la képp kuy bañ dialogue Sénégal ñor la parce que dëkk bi mënta avancer sànq tooguñu ci table waxtaan élection yi. amul benn candidat boo xamante ni pare nga pour dem élection 25 février ku dul Amadou Pa parewoo ñëpp a gis ci vidéo yëpp Amadou Ba côté logistique pare na côté moyen pare na bi mu jugee tournée ci Sénégal yàggul suba suba mën na kaa defaat ñu dem élection mu gañe gaañi mais yëf tollul foofu président mag mi nga xamante ni moom moo jiite mais ñëpp moo leen boole uuf candidat yëpp. far amul ku mu faral amul ku mu si faral xam na ni ñu demee Amadou Ba da leen gañe mais li am solo mooy nañu toog waxtaan li ngeen jàpp ni jaaduwul te mu rëcc ñu xool na lañ koy réparé en naa ñi nga xamante ni dañoo yóbbu seen dossier si yoon ne li ñu leen di tuumaal ñoom waa conseil constitutionnel defuñu ko le temps yoon def liggéeyam décembre yàggatul en tout cas ñi ngi ñi ngi woo bépp sénégalais di woo suñu moroomu jeunes yi di woo aussi suñu yaay ak suñu papa yi à que ñu gën a uufaat seen njaboot à ce jeunes yi aussi xam ne new ñu fi rek pour doon ay nervi new ñu fi rek pour gàddu àqu yàq alal jàmbur mais liñ fi liñ fi nekkee mooy tabax ndaw ñi ñoo war a tabax ñu ngi leen woo ñu am plus de retenue